rahmatullah taala wa barakaatu ñi ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo leen tiitaro donc euh, voilà dama ñëwoon ci benn waxtaan bu ndaw rek ma bugg def ak yéen quoi euh, <coughs> donc di leen xamal ni bu fekkee ni yéen a ngi déglu bu baax rek parce que man. sama xex bi dama koy xex ak principe dama koy xex ak deug dama ci xex ak deug dama ci xex ak idéologie donc nu xex bi di yëngu-yëngu ak nu muy bëri pexe ak nu muy bëri ay information yi ci génn boo leen seetloo bu baax bu dee yéen a ngi am seetlu am na yu bëri dina am ba romb te duñ ci dégg samay kàddu parce que day fekk man ma romb loolu wax ci li ma ciy wax pare dem sama yoon léegi nag réew mi moo nekk benn réew boo xam ni bu wax jóge ci gémmiñ gu mu tàmbale balaa moo tàbbi ci nopp yi dina jaar ci gémmiñ yu bari te gémmiñ gu mu jaar dina am lum mu ci dolli lu ci bokk ak lu ci bokkut ba boo seetloo wax ji ni muy tàmbalee ci gémmiñ ga mu génne kooku dina dem ba ci biir di dégg ci wax jooju yeneen yuñ ci yokk ci gémmiñ yu mu jaar yëpp ba moom ci boppam bu dégloo wax jooju dana day jaaxle sax jàpp ne wax ju bees la fekk yoo ab waxam lañ jël changé ab waxam lañ jël soppi ab waxam lañ jël dëpp ka dippi c'est-à-dire ki wax dina dem jimmi jamono muy dégg wax jooju mu jaar ci ay gémmiñ ñu soppi ko ba moom ci boppam da koy déglu jaaxle foog ni information bu bees la tandis que moom la mu lañ jël di ko transformer di déformer di transformer ba defar ci leneen Non les sénégalais yi di doxee noonu sénégalais am habitude pour moi les sénégalais nag c'est jamais dans sa globalité c'est jamais je parle jamais de tous les sénégalais jamais musuma wax may faral nag naan sénégalais mais ne veut pas dire que tous les sénégalais jamais musu loolu mënul am ñëpp mënuñu bon ñëpp mënuñu bax ñëpp mënuñu loolu mom jaru sax né ah non du sénégalais yi ku koy wax xamal ni xamul maîtriser wu li ma xam ne dama bëgg wax ni dafa bëri ay sénégalais yu mëna déformer ay wax. ak mun a jinne lu mais man j'ai la tête sur mes man lu may wax damay bugg muy doon lu dëggu ba jimmi jamono nu mu yàgg yàgg yàgg yàgg doomu aadama du ne ma kaay fii yaa fenoon fii yaa fenoon fee te nee naa leen bu nit di xeexee ci dëgg kenn du ko munal dara bu nit di xeex di ci rax ay fen ak ay wax lu dul dëgg day neex a pexeel chaque jour ma wax man nag demeewuma euphorie demeewuma euh, attaque demeewuma dara waaye am na tam beneen stratégie bu may def si sama xeex bu ma bokk xeex benn Moustapha Niang boo xam ne man ràññee naa ko ci xeex bi mais bu ma ko gisee muy xeex mu nekk ci dara malgré ma xam ni non lii gëwuma ko wala dama ciy werante du ko musa yéeg ci kaw naan Moustapha Niang waxul dëgg wala nangam naan duma jël Moustapha Niang def ko sama xeex jamais parce que damay xam ne man ak Moustapha Niang ñoo bokk benn xeex mais nag mun naa woo Moustapha ci suuf ne ko lii nii la demee lii nii la demee lii lii laa ci gëm lii gëwuma ko ci mais du jóg ci kaw di xeex Moustapha Niang parce que Moustapha Niang bu ma ko xeexee mooy xeex sama bopp bu ma déstabiliser Moustapha Niang mooy dama déstabiliser sama bopp et pourtant ñoo bokk benn xeex xëy na sa façon de lu muy xeexee mooy laaj moom bañu ci dara yàq-yàq la rek waaye duma jël Moustapha Niang ci kaw di ko xeex parce que Moustapha Niang du sama cible il faut doomu aadama yi bañ a fàtte seeni cible di xeex di xeex bay xeex ñoo nga ñi nga ñi nga bokkal xeex loolu rafetut loolu rafetut demb maa ngi seede ci MC Niass am nañu dugg di bind di commenter man luma wax dafa leer dama ne waa APR ñu mëna a fen lañ parce que ñoom lay xeexal ak ñu and ak Macky Sall am ñu dem di ci duggal Akhenaton pourtant man waxuma Akhenaton de ba léegi tudduma Akhenaton am ñu dem di togn Akhenaton di ñew di di ci def Akhenaton déedéet Akhenaton day xeex bokk ak man ben xeex dafa am stratégie

benn suuf bu akonatoon tibb sax di ko xeexee sax man amal na ma njëriñ ñoo bokk xeex benn xeer bu muy for di ko sànni même bu dee bu ndaw la sax amal na ma njariñ j man musuma ko tudd am ñu koy jël ñoom di ko xeexee xeex bi du ay xeex du xeexu personnel du ay xeex ñun nous daa nous dafa am benn idéologie bu ñu amoon ñun kër gi kilifa moo ko fa indiwoon kilifa daf ne même dans le faux on est unis même dans le faux on est unis kilifa keur gi moo indoon philosophie boobu am fit for life wax dëgg forever moy philosophie keur gi mu indi même dans le faux on est unis quand on est dans le faux manam nek fenn mo la togn kilifa day ñew xex bay bëgg a naaw ba dé buñ démé ci biir mo la lu xew nga li mëna a ak ya ko togn entre nous mais duñuy wili pandewante jamais ci biti même dans le faux on est unis donc bu ñu àndee bokk benn xeex du soxlawul ñu am benn objectif mooy jëlee fi lii nit nag dans son parcours mun def erreur parce que nit matut ñëppay def erreur mais du yoon dañu war di yëkkatante waruñu di wàccawante waruñu di dammante waruñu di dammante dañu war di yëkkatiwante dañu war di soutenirante man non lañ ma jàngal pratique boobu laa xam bu ma fi waxee Ousmane grand Ousmane mais ñu bëri woo nañ ma fi noo bàyyi ko noo kii foo la kii nangam ci moment boobu laa génne photom def ko ne kii c'est un très grand combattant kii combattant la kii grand bu positif la kii ku bëgg xeex la kii ku mën xeex la kii kuy jël alalam di ci def la ma defal ko spécial portrait Ousmane Tounkara spécial portrait ne kaa leen aimé ko ki jàmbaar la parce que Ousmane mi ngi liggéey ci liggéey bi lu doy waar mi ngi ciy def lu yéeme voilà quoi que l'on puisse dire lam amal njëriñ xeex bi moo ëpp fuuf ku am doole la Amérique amul kenn ku ko gën a taxaw Amérique ba Amérique daj trente états amul ko Ousmane Tunkara amul ko ko représentatif fofu nonu légui man sama côté côté Amérique Ousmane diñu fa téwal man ma wara pour damante Ousmane Ousmane pour lan qu'est-ce que j'ai gagné, lan gagné lan gagné donc ñun ñu ci amaguñ sax doolé kon ñu ci jappanté di tal ay live di di c'est pas intéressant

maali foro te ñoom ñëpp ay père de famille lañ ñoom ñëpp seen yaay yeeg seen ñii seen yaay yeeg seen papa yaa ngi dund nga war a dem xeex pour libérer ses otages politiques nga war a xeex ci scandale quarante cinq milliards en armement yu yu jëndul nga war a dem xeex ci Macky Sall nga war a dem xeex ci activiste yu mu àndal yoo xam ne saaga nday ak fen rek la ñuy def nga war a xeex ci assemblée nationale bi merde bu fa nekk nga wara xex ci dekk bi nu mu nga wara xex ci institution yi naxasal nga wara xex ci nit yi ñuy rey nga wara xex ci dj baaji bu ñu tàggate su sànni ngay tok di def ay spécial Ousmane Tunkara spécial Akhenaton spécial Jiji mais nit yi dañoo am problème wala dañu xam lu ñuy xex problem am problème wala dañu xamul lu ñuy xex ay problème personnel mo fi jeex

Un spécial Mola Morgan, tu gagnes rien. Un, un spécial Didi, tu gagnes rien du tout. Tu amuses la galerie. Un spécial MC tu gagnes rien. Tu amuses la galerie. MC Nias sàccul alalu kenn. Akhenaton à alalu loquenne. Ousmane Tounkara jëlul alalu loquenne. Père Ousmane Dramé la alalu Sors le wuñ seen seen ngeen wax ci si ñoom wax lañu ci ñuy sàcc wax lañu ci ñuy comploter wax leen ñu ci ñuy tëj suñu nit prison wax leen ñu ci ñuy détourner suñu caisse yi wax leen ci ci malversation financière yi wax leen ci dérive autoritaire yi wax leen ñu ci détournement des deniers publics yi wax leen ci crime financier yi wax leen ci assassinat yi wax leen ci emprisonnement yi wax leen ci empoisonnement yi mais arrêtez avec tout ça ngi nekk fii ay activistes soi-disant activistes yeewu suba ba ngoon jàpp seen moroom yi activiste teg waa yow muy kii yow wóoluwuma la yow lu mu fi sàcc yow yow yaa ma def lii yow xol bu ma ñoppatee mais mais gars yi nañ nañ focus quand même nañ focus kan fay teg amul benn compte bu mu lay rendre Akhenaton amul benn compte bu mu rendre sénégalais yi MC Niass amul benn compte bu muy rendre sénégalais yi Ousmane Tounkara amul benn compte bu muy rendre sénégalais yi et cetera et cetera c'est des sénégalais qui se sont engagés di xeex te kenn sexalu leen lem kon gaay yi nañ mayante jàmm quoi ku nek liggéey li ngay wala Californie les scandales fonciers sont là euh, euh, euh, non non danga ma Californie euh, euh, waay kii en France là oui c'est tout fàtte naa ko sax donc pour wan leen leen daal c'est nous dans nous man loolu laa gëm loolu mooy esprit d'équipe man tey wax ci ma cuucu fay moo ma gënal naan damay teg fii naan damay wax ci keneen sénégalais ñoo soxlawul loolu te lépp lu may wax it lu ma waxul mooy awma ci lu ma leer kay kay kay kays kayis fof respect lu wax guerre intestinale bobu am man bokuma ci ni gars di reyantee sen bir man bokuma ci je trouve ça très enfantin je dis même pas très féministe parce que jigen lu lu lu tuuti rek gars daf ko jigen mais non jigen melul noonu xam nga dañoo yëfu jigéen non dedet Sénégal légui jigen ni ñoo gëna a nekk góor bu dee tëgg sabar boo leen xoolee jigéen yee ko góor yee dàq fecc jigéen yi góor yi ñoo daq raxas cin jigéen yi léegi góor yi ñoo daq gintee cere ndawal jigéen yi jigéen yi ay jàmbaar lañ donc kenn mënul wax ay yenn yenn actes yi ñu naan ay dafa jigéene déedéet loolu yàgg na jigéenu léegi ñoom ñooy lu sax di jox seen jëkkër yi ñu am jom lañ ñu am ful la ñu am fayda duñu ay jigéenu APR yi nga xam nañu leen yóbbu ay assemblée nationale ñuy dóor ba section bu nekk cinq cent mille de provoquer, dit di les ka yanu sont du ñooñu jigéen yi fi nek c'est des consciente yu xam lan mo xew lu wax gis vraiment du nit je dis même pas jigéen du nit vraiment tok yeewu jël sa temps rendre amul ben compte bu muy rendre ben sénégalais Akhenaton amul Ben compte bu me rendre Ben sénégalais le temps que vous prenez votre temps à publier et à parler des gens mais parler de ce qui se passe dans ce pays lu ñu bokk te nit ñi di ko karawale li ngeen war wax dafa bari maintenant lan je tax sama def live parce que sama boy yi léegi lañ dem sax heureusement dafa am ku ma yónnee message na dafa am euh, waaye dafa ma yónnee message léegi voilà mi ngi nii na euh, waaw mu ne ma xam nga temps maa leen dégg ngeen di wax liste liste liste liste est-ce que dégg ngeen ma ma wax list dama leen di pose question boobu ba léegi yéen a ngi may déglu mercredi ba léegi mercredi foog naa jeudi mercredi la def affaire ba aji sar ba, ba suñ jonne yàlla est-ce que dégg ngeen ma ma tudd liste man mo la Morgan, sama baat ca kaw est-ce que dégg ngeen ma mo wax le liste déedéet ken déggagul ma tudd liste kenn déggagul ma nekk un la wala 2 la wala 3 la Ken déggul ma wax liste musuma publier liste musuma tudd liste donc mooy wane ni man amaguma accessibilité ci list bu ñuy wax mooy wane ne amaguma lu ma wóor ci list ma dafa am démarche bu may doxee duma fen duma yokk duma ma wàññi parce que dama ne dama nekk ci xeex boo xam ne dama bëgg lu ma wax teg ko am fu ma ko teg duma waxantu nu mu metti metti metti du ma waxantu musuma wax list live boobu ba léegi yéen a ngi wax liste musu leen gis ma ubbi sama gémmiñ c'est la première fois ma ubbi sama gémmiñ di wax waxu liste parce que aw ma kaaral lu ma leer ci liste yoruma benn audio buy wax ci liste xamuma kenn ci liste donc mënuma ñëw ma war a doon éclaireur di dégg ñëpp naan list rek ma ne liste ñëpp naan seize ma ne seize mukk duma ko def damay dem ba am lu leer ba ci lu leer ma wax parce que ci lay ëllëg buñ ma wowe ci dara mo mun ko défendre lepp lu défendre yorna ka itam man duma fo ci sama life duma fo ci sama avenir pays duma fo ci conscience sénégalais lepp luma lu wax fo ma song même cour de la haie ma génne la amaguma audio buy wax ci liste yoraguma liste buñ ma yónnee te dégg guuma MC bi nga xam ni moo yor audio yi ñëw di wax list mais respecté naa ki ma dégg comme ni ngeen ko déggee mu wax waxu liste ma respecté ko jox ko confiance ne xëy na li mu wax moom moo ko xam te mun na ko défendre mais tant que kooku joxuma ko ma déglu ko wala ma xam ko aw ma chance boobu duma ko assumer kon man fi ma tollu yoruma liste waxuma ci liste tudduguma kenn ci liste bu dee am na audio buy wax ci liste awma ko musuma ko déglu kon munumaa wax ci liste damay wax comme lu Macky Sall wax du ma ne waaw du ma ne déedéet awma ci benn certitude gisuma liste dégguma liste liiruma liste ñii ma leen wax moom am naa ci certitude Bougane Gueye Dany tëddee na aji Sarr ba mu ko wutalee appartement bañ ko ba ba Dior Diagne woowee ba joor Diagne bu mu ko woowee mu ne ko waaw mun naa ko abal loolu moom Bougane Gueye dani abal na Adji saar ñu indi ko fa guddi Adji Sarr fanaan fa le lendemain Bougane dem na fa di xool Adji saar ba xam mi ngi ci jàmm ba xam parce que Adji saar ba muy dem ci appartement Bougane yoyu Bougane gisuko dafa am kum ko bolel ñu jël caabi gardien bi dem ubbi aji sar duggu fa appartement a louer yoy ay chambre de passe loolu lumay wax la parce que luma am la preuve preuve yo xamni buma bu ma Bougane ba cour de la ma tegal ko ko mu déplacer wu aji sar ñew fa ñu duggal ko ci appartement Bougane le lendemain la fa ñew ba mu ñëwee di xool nu Adji saar toogee boobu la nekk moom nekk moom ba tëddee ko may ko cinq cent mille francs CFA dem yoonam Adji Sarr yàggul foofu c'était juste temporaire loolu am naa ci lu ma wóor buggaan xam ne li may wax ni lu wóor la te moom ñimewu toppee fenn wax jooju dafa garaaw bu buggaan mënoon dindi affaire bi day ñëw fi Canada c'est juste un billet ñëw na fi sax ñëw na fi sax mais ñi mewul jege ma jege ñëw na fi man maa ngi fii yor yi këyit ci fiche bi nek partout bu sama sama numéro di dox ñu wo sama numéro di dox le gouvernement canadien xamna yor avocat yor lepp bu ko bugan bugon weddi c'est facile day dag billet and ak ay ay avocat wala mu ñëw ba fi wut ay avocat international ñi dem justice affaire ba lèr defu moy woné kin di rien consent parce que xamna bu baax li ma wax doful jëna japp ko te bu ko weddi woon wili ci àdduna ma def teg toog boobu leer na ma mu jóge foofu ñu luweel ko virage yoof almadi appartement boobu kan moom moom moo ko wutal ki nga xam ni mooy Mamour Mamadou Mamour Diallo parce que moom Adji Sarr wax na ni Bougane jaar te lu mu naa lépp bu Bougane ba muy woo maam seen naan ko bëggaan dafa ak dënnam boobu ak yaram bi mu bës sama dënn bi ma am problème mu nokki muy xeeñ niw niw xëy na xëy na nag xëy na diw diw diw diw la wala loj ko la ñam bu mu def xëy na kii ki 44 mooy mooy mooy kii néew yi néew yi moom mooy loj ñu néew xëy na kii ki 44 la buggaan defoon xëy na poxataan yéen doo xaw ma mais moom daal aji saar nee na buggaan dafa jël dënnam bi yëpp doolem bi yëpp sëf ko ci dënnam da doon nokki ba pare dañoo ñaqoon sonn buggaan sëf ko dënnam bi ñaq sonn di xeeñ niiw loolu aji Sarr moo ko wax mu leer ma wax ko man tamit te buggaan teggiwu ko te portewul plainte dafa daw carrément wax jooju ñu jële ko foofu yóbbu ko ci Mamour jàlloo Mamour Diallo jël ko yóbbu ko mooy ngor yoof ngor waxam yoof virage ba mu ko yóbbee foofu Mamour Diallo laal na ko fa deux fois njëkk na ko tëddee ci kanam après Adji Sarr commencé gis ay perte blanche fu mu tooy mu tooy fu mu mu tooy Viviane remarqué loolu lépp Viviane mooy placé bu dee première bu dee bu dee première Viviane placé wu ko boobu Viviane placé wu ko première bu dee bu dee bu dee bu Bougane la du Viviane moo ko placé mais bu ñuy yëgee ni Bougane da koo laal ci lañ jël Viviane boole kook aji Sarr mu ànd ak moom ci immeuble Mamour jàllo Mamour Diallo jël xaalis di jox euh, ki nga xam ni mooy Viviane Rismon Diis di Ndeye Fatou Dioum nekk tey Amérique daw daw dem Amérique ak njabootam yaayam ma nga Amérique doomam ma nga Amérique moom ma nga Amérique donc foofu Bougane tëddee na Adji saar lu ma leer la loolu it ni ma ko xamee deuxième bi bu mu ñëwee fekk ñu jox ko ay affaires yu muy dugal ci sexam moom Adji saar am na pili li mu doon dugal xawma nu ñu euh, ci sexam man gélule yu muy dugal ci sexam ak ay antibiotique yu muy naan bi Mamour Diallo ñëwee bëgg ko tëddee même chose daf ne ko tonton dama am gynéco bi nee na mënuma def affaire sexe sama affaire yi day tooy expliquer ko Mamour Diallo xooñ amoon envie bu muy ñëw xam naa dans sa dafa war a laal Adji Sarr ci la ko commencé di ko palper Adji Sarr di xam rek ay ovi lim doon dugal ci sexam lolou motax jox ko won bopam ci la jele gel hydroalcoolique bi bu mo xamni ci posam ak ay suppositoire yu aji sar doon nan ovule suppositoire et cetera et cetera yooyu waxon nañ ko motax delu watuma ci aji bu gan dugal ci posam joutal aji sar lal ko ci tat ci tat parce que mënul woon jël sexe dugal ko ci taatu aji saari yi direct parce que to il faut mu tooyal amul amul dara lu muy def ci bagaasam yi wala ci affaire aji saari mu jël gel hydroalcoolique bi pour mu mun a dugg ci taatu aji saari mu def ko ci bagaasam yi ba mu tooy dóor ko ko ci la ci taatu aji saar aji saar yuuxu tëb yuuxu yuuxu ça s'appelle ovule ok mu dugal ko ci taatami laal ko ci taat laal ko nag ci kanam malgré ovule laal ko ci taat laal ko ci kanam mooy deuxième fois ma ñëw na leen kii nga xam ni mooy Bougane laal na ko benn yoon Mamour Diallo laal na ko ñaari yoon donc gel hydroalcoolique bi la defoon lubrifiant am ja laalee Adji Sarr ci taat ci ginnaaw loolu kenn mënu ko dindi man lu may wax damay bugg a teg ba fii l'an deux mille quarante cinq kenn du ko dindi maître El Hadj Diouf jaar na fa deux fois essayé na pour tëbu Adji Sarr deux tentatives indiloon na ko fi ay cadeau des fois mu jënd ay affaire naan ko sa tata moo la ko jox des fois xale yee la ko jox pour nax ko jéem na ko tëddee deux fois mais sottiwul moom maître El Hadj Diouf donc bu ma toogee ci liste léegi ne maître El Hadj Diouf mi ngi ci liste ba ci ñi laal boobu yëgu donc mënu ma ko assumer mais xam naa ne def na deux tentatives loolu it ma nga ca biir audio ya man damay wax loo xam ne ba deux mille trente dindi Mamour Diallo laa wax Mamadou Mamour Diallo Mamadou Mamour Diallo loolu la tudd moom Mamadou Mamour Diallo la tudd donc El Hadj foofu ngay gisee silibam bi El Hadj dafa gaaw a génne bagaasam lu ñuy wax dëgg la El Hadj ki nga xam ni moom mooy euh, Gabriel kan mais enregistré na El Hadj Diouf El Hadj Diouf jàppante woon na fekk Gabriel kan Ela Diouf Gabriel Kan gis na sulum gis na gis na cuucoom El Diouf moko don wax Gabriel Kan pour mu matchal ko kooyam wu ko koy def nako bo mo meunon matchal sama serreur bi loolu la ko wax serreur xam nga tukulor jaamu serreur Gabriel Kan tukulor la El Diouf serreur la El Hadj Diouf génne kooyam ne Gabriel kan boo ma munoon màccal sama séeréer bi loolu loolu audio la audio dafa gaaw ci génne kooyam mais El Hadj Diouf Gabriel kan yor na audio boobu bu ko El Hadj Diouf di proposé pour ma màccal ko sullam bi pour ma màccal ko kooyam mu tuddee ko doo ma màccal sama séeréer bi te gis naa ko rek kenn ku ko publier sax xaw ma am na fu ma ko gisee daal ci kii bi ma ne kii fan la fan la jotee audio boobu c'est vrai El Hadj dafa feebar dafa gaaw a génne cuucubeem El Hadj dafa feebar dafa gaaw bëgg a waté dafa viol dafa nek ci mom té jaar-jaaram yëpp affaire de viol la El Hadj Diouf nee la depuis bu nek xalé bu doon dem kër tantam sax dañ doon rëccël xalé yi di leen jël di leen tuxul fenen pour ñu dem vacances fenen wala ñu dem yenn ji fenen pour bu El Diouf fekk fa cousine mi parce que da leen doon da leen doon xam ni ñu koy waxé da da da doon foowee euh, euh, euh, cousine mi bu ñu nekkee xalé xale yi dem ba dégg ni El Hadj Diouf day def ay attouchement sexuel ci ci ay cousinam xalé yi dem wax ko tante mais comme bugul sen tante sen tante beeg seen bàjjan bugu ñu toroxal dañuy baye ba ne day ñew yendu ci ñu jël sen dom yeb rawale ko lool waxna ko fi donc dafa ci dafa dafa sexuel lool moko yobbu France ñu jox la yóbbante sa xarit bu jigen jox la pour nga jox ko domam ngay tebu domam lool dafa yag ci noonu la génnee cuucoom bi naan naan naan Gabriel Kane dooma dooma enregistré dooma kii Gabriel Kane enregistré loolu pour mu màccal ko séeréer bi xëy na tukulóor jaamu séeréer yooyu lañ doon def moo tax mu ne ko sama séeréer bi El Hadj Diouf te musul laal kenn te deewul Gabriel kan ñaari yoon yoo xam ni kii moo ko rejeté lu mu tuddati euh, euh, Adji Sarr da ko rejeté bu ko laaloon damay ñëw ne leen laal na ko donc El Hadj Diouf bu duggee day yàkkataan dana yàkkataan ay cousine am ak xale ya donc El Hadj Diouf jéem na tante deux fois noo réussi bu muy sol tubéy euh, silb yu am poche poche devant yi mbabal 45 yi loolu waxoon naa leen ko loolu du dañ El Hadj Diouf moo moom moo craqué loo Adji dóor nañ ko bugaan dóor na benn ñu ñu dóor ko ci kanam mu Mamadou Mamour Diallo Mamour Diallo dóor ko ci ginnaaw ak taat yu boy parce que da da cee def da cee def Euh, gel hydroalcoolique bi à la place du lubrifiant fofu la commencé craquer ndànk Elle a djouf d'or deux tentatives non réussi ci la ci la ci la craquer ci le tebé fofu non daw lolo ko fa guenné donc tur yoy ma leen wax yoy la xam C'est yoy dama ci ami preuve yor preuve yi toog di xaar ñamay waxal kenn musul jóg porter plainte kenn ba waxna ba waxal avocat El avocat international la moo du ma plainte mais demandez-vous la question lan Ella di avocat international te quand on a Canada fait fekk ma fi porter ma plainte c'est un avocat mais il n'a qu'à venir ici au Canada Je bu baax doful la ko la wax yor bagage yëpp téye di xaar ku yëngu kenn du yëngu du ma wax nag lu ma xamul nit di ma wax ay wax parce dégg naa El Hadj Diouf def ne neen day porter plainte ki nga xam ni moom mooy suñu waa ji nekk Walf respect à lui ne da koy porte plant nee na daggate na yi muy wax yëpp da koy porter plainte justice la dem donc loolu balaa nga wax dara da ngay am yenn élément yi nga xam ne ko téye ci sa loxo ba mu wóor nga xam ni foo leen dem da kay teg ni lii laa dégg mi ngi nii. te yaakaar naa kuy wax rek yor nga loolu mais man noonu laay xeexee am lu wér te woor te lu ñu wax mu leer jour bi leen Gabriel Kane waxee dafa accidenté dafa fen accidenté wul te gis ngeen ko def na vidéo man leen Gabriel Kane guddi googu dina jóge foofu dem New York le 13 le 13 Gabriel kan dem le 15 ma ne le 15 dina gisanteeg i Sall le 15 mu gisanteeg Macky Sall. tey gis ngeen mu def vidéo rafet jekk taaru sol ay bumbeusam waa maa ngi nii ci ku ne woon dafa accidenté maa leen di békkee kii ngeen gis ne Gabriel Kane leen gën a wér. moo leen gë ngi mi ngi ne cocc yéen ñu ko nu yëroo Gabriel Kane accidenté seen wax ju rëy bi. yónnee nañ ma vidéo tey si suba Gabriel Kane nekk ci ni ci ci ci xaaral ma ma dugg sax génneel leen ko xëy na am nañu ko du seeraan parce que gis naa ko gars yi wane nañ ko ci TikTok beeg yooyu euh, tout ça xaaral ma def Gabriel Kane aux États-Unis rek xëy na gars yi génn xaw ma fan la ko defee nag fan la ko defee mi ngi naan mi ngi ne mi ngi si jàmm mu ngi si salaam man duma man man dama caaxaru du ma joxe ay information nii du ma joxe nii ay information bugg lu neex nit wala bëgg lu kontaan loo nit wala bëgg a jommal nit déedéet lu ma amul preuve du ma ko génne lu ma amul preuve du ma ko génne bon maa ngi doon dem YouTube pour xool ko mais gisuma ko yónnee nañ ma ko daal sama sama euh, nu mu tuddati sama sama sama portable bii may defee live bi quoi mais dama la doon woon Gabriel Kane nii muy yéeg ci montagne gars yi di ko vidéo mu sol bëmbësam ci dóor kolaam xam nga ne fii dafa sedd donc lu ma leen waxoon yëpp yéen a koy gis Gabriel Kane accidentel day fen ab taxi la duggoon taxi ba xoos beneen taxi mu génn changé beneen taxi ne dafa accidenté prise de peur que de mal jour bu mu leen naxee di leen wax loolu ngeen di def ay montage Gabriel Kane accidenté na Gabriel Kane na Gabriel Kane Gabriel Kane ci la duggee avion le le douze la nuit mi ngi mi ngi ci Instagram am dugg la nuit ñëw New York le treize. waa New York kenn gisu ko mais man maa ngi koy topp ma ne leen le quinze dina gisante ak Macky Sall le quinze mu gisante ak Macky man damay teg affaire yi fu te wóor. elle l'a publié dans son Instagram lu wér te wóor nga koy gis teg ci bët man du may werante te samay wax amul werante samay wax doomu adama du ko dindi dama koy tek fu wér te accident bu am bir Dakar amul film amul dara wanewul tous mu ñew dina wax waxo accident donc ay tiaxan la loolu lépp da leen loolu da leen da leen da leen réeral pour mën a daw dem États-Unis foofu la waroon gisante ak Macky Sall donc awma liste yoruma liste am na ku ma yónnee ne ma dafa am benn xawma site internet benn waaye bu wax foofu ne leen Mollah Dakar fan la wax mi ngi nii foog naa Feeling Dakar xawma Feeling Dakar waa ji ne ma Feeling Dakar waa ji mi ngi nii message bi mu ma def dama koy kon da ngay dem nga suivre Feeling Dakar ngi ne ma wala mi ngi nii waa ji lan la. grand maa ngi xam man du ma suivre yii. Euh, maa ngi leen di seetaan Feeling Dakar quoi mais euh, dafay wax ni quoi yow yaa joxe yi nga da nga joxe liste bi da nga publier da nga ko bi quoi pour mu pour ko. xool leen fen yooyu nan la nit mun a demee nan la nit mun a demee ci site. toog xaw ma ko xamaanuma ko seetaanuma nekk fii samay booy yi di foo kat di bal bi fii dugg nangam. am ku may fenal koo xam ne moom mi ngi Sénégal toog ci plateau di ma fenal ne man dama ko jox liste. <laughs> dëkk bi daf dëkk bi boo bëree ñu dal sa kaw boo bëreewul ñu bëre dal sa kaw dëkk bi moo fees dalaki fen moo tax nit yi di daw ñii di dugg avion ñii di dugg saret ñii di dugg buret ñii di dugg ci gaal ñii ñëpp a ngi daw dëkk boobu ndax ay duul yu metti doomu aadama boo xam ne xaw ma ko musuma ko gis toog ci ab toog plateau ne man maa ko yónnee liste de six des seize personnes <laughs> dëkk bi amul de des fois tu te dis doon sénégalais sax nag nit yi ñu mënee fen moo moo ëpp amuñu ci vergogne moo tax dëkk boobu ku mën a daw dawal du dëkk euh, maa ngi di seetaan Feeling Dakar quoi mais Euh, waa dafay wax ni quoi yow ya joxe da nga da nga joxe liste bi nga publier da nga ko jox liste bi liste bi quoi pour mu pour mu publier ko yakaru mo ko nak ni ya ko def mais en fait liste pour man euh pour man quoi liste bi. Euh, dégg nga ay audio yi la génne ko waa mi ngi koy seetaan ma ko man joxewuma liste gisuma liste jotuma liste. non kon da ngay dem nga suivre Feeling Dakar en direct quoi. gaañ bi gaañ bi am na benn liste bu mu tiim yi nee na yaa ko envoyé léegi ah, demal demal demal fii léegi léegi léegi léegi. dégg leen loolu. ndakate man li ma toog fii yëpp sama booy ñëw fii déranger ma kutti kutti tooñanteeg man nangam ndakate am na ku may fenel fële ku toog ci benn plateau di wax ne man dama ko yónnee ab list <laughs> gis ngeen de gis ngeen réew mi kenn mënu ko xeex dañuy xeex di duul lalaate di fenn di teg. ah. instant bi ñu ngi en live quoi ñu ngi en live. ñu ngi en live nee na. waaw daa mel ni Bambala mooy présentateur bi actuellement ñu ngi en live mën nga mën nga bi s'il te plaît. man tu ma visiter dara. mën nga euh, suivre page bi. mukk bu fekkee ni Tu ma suivre du ma suivre man du boobu moom néew parce que na am am Mollah Morgun envoyé na ko benn page sûrement dafa am contrat ki sa soit. Euh, Ben benn faut contrôler quelque chose comme ça. quelqu'un qui se fait passer pour toi. juste du quelqu'un qui se fait passer pour moi Ça va benn Facebook là am Facebook bagni ñep gis nañu fa laay defee live. quelqu'un qui s'est passé pour moi ne veut pas dire que tay nga dem rek taxaw non mais arrêtez quoi gis ngeen gars dé gis ngeen gars dé da ngay nekk ci deug di wax deug di dox ci deug sax am ñu lay fanal fële ñi créé fële motax tax len ne kenn mënul défar Sénégal tant que ñoo doon lu ñuy woowee ñoom dictateur waa ju strict waa ju soxor waa juy créer fausse commune di tëmbal di rajaxe di tëj di noq di mbéj di rëkk di ngadd di këdd fen sax mu yóbbu la ñu ñu jugé la fen yi ngay fen il faut loolu am sénégal kuy ñëw di yërëm tëlu doo ko defar kuy ñëw di déglu ay sëriñ doo ko defar kuy ñëw di déglu ay culture Sénégal ni culture culturellement nii lañuy ñuy doxee doo ko defar kuy ñëw naan kii sama bàjjal la kii sama tànt la doo ko defar kuy ñëw am ci ay mbokk doo ko defar kenn du defar Sénégal te ne dafa am ay mbokk foofu dama am bàjjan dama am tànta kenn du ko am kenn nit ku strict ko xamni ni benn objectif la am muy Sénégal kessé mbokam boko nek lan moy sa mbok mu ne Sénégal benn genre Poutine lan kan moy sa mbok Sénégal kuy sa papa Senegal. kuy sa yaay Sénégal kuy sa serigne Sénégal kuy sa xarit Sénégal koku mo mun a defar Sénégal ko xamni ne intérêt Sénégal ñoruko amul xarit amul andando, amul kumi xol

C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, de voir sénégalais yëpp une liste joxuñu une liste une yoruma audio bu am liste une liste. vous, na ma liste. preuve ne Bougane une te na ne El deux fois waxuma trois un deux fois tenté na ne kii di Mamour ay ñaari doomam a ngi fi Mamour Diallo ñëw na fii <laughs> da ngeen a yëgul rek de Mamour Diallo ñëw na fii Mamour Diallo tey mi ngi woon ak Adji Sarr Mamour Diallo tey tey tey Mamour Diallo mi ngi woon ak Adji Sarr dem na ca hôtel ba nee naa leen mercredi ba léegi maa ngi leen topp man damaa am histoire ma leen di raconter. am na jamono ju xam nga histoire bi lépp laan raconté les 17 jours fa ma 17 jours raconté raconté boobu ba léegi maa ngi kon man du ma dellu ci ginnaaw histoire bi lépp lu ma waxoon duma ci delluwaat histoire moo leen di delloo ci li ma waxoon ba may wax rijaal kenn xamul ngeen toog dégg rijaal dawa yéenay ñëw mais man mënu ma delluwaat ci yéen dafa am histoire bi ma leen raconté mënul saa yoo leen déggee dara ma delluwaat ci yéen di ah déedéet man dama damaa jiitu nekk leen ci saa yoo leen nekkee ci ginnaaw déggaat dara rek dawaat ñëw eh Mollah da ngeen di daw ñëw ci man ah Mollah am na kuy wax fële nee na lu nga waxoon la wax de man damay continuer focus. am na bu ma leen raconté histoire bi ba léegi maa ngi leen di topp affaire bi ba léegi maa ngi leen di dénicher Adji Sarr ne fii la nekk numéro am fii la nekk ñii ñoo nekk fii yóbbu nañ ko ci hôtel bi yokk nañ sécurité bi man dama koy topp. je à jour lu ñu à jour moment bi ngeen di wax waxu liste man je suis à jour. man maa ngi topp Adji Sarr ba tey tey tey tey tey Mamour Diallo dem na fa fa mu nekk gabi gabi gabi sow moo ko fa yóbbu hôtel boobu donc man dama nekk à jour léegi yéen boo leen bëggee dellu ci ginnaaw man moom nekkuma foofu damay focus aji laay topp lu muy teg ñu ñu wax ci wax yi lépp tout nee naa leen sama waxu démb mooy sama waxu tey Ousmane Sonko dañ ko bëgg a yóbbu procès takkal ko jiñ ko mu inéligible lol moy seen objectif lo nañ Adji sar na Adji sar day gagner procès bi motax fuñ tollu ñom toll ñëpp Adji sar et ses souteneurs dañ nan nañ dem procès nañ dem procès procès public ñom dañoo gëm ci ay fen ak pexé ni ñom moom justice ko Adji sar day gagner Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko indé yalla indi tu bi indi tous les prophètes bu waxé dañ nan Adji sar mo gagner ñom loolu lañ gëm te loolu lañ jàpp parce que ñoo moom Maham Diallo Maham Diallo assurer na la nit loolu dañ koy def ñoo moom Pape Amadou Diouf procureur Pape Amadou Diouf nee na da koy def la ñooñu loolu moo leen indi mais Mamour Diallo lan non kii Omar Maham Diallo lan moo ko def lan moo ko def doyen des juges c'est parce que daf leen assurer dafa signer comme quoi que moom bu toogee dina def ni dina dina dina taqal Ousmane Sonko. Ousmane Sonko du gañe moo tax ñu def ko doyen des juges doyen des juges boo xam ne avant moo jël Ousmane Sonko dafa ànd ak famille APR yi ñu dem Inde <laughs> mais sama gars yi yéen lan ngeen toog di xaar yéen yakaar ngeen ni yéen yéen yéen Maham Diallo yéen a ko fal yaakaar ngeen ni Maham Diallo yéen la fi nekkal quoi wala Ousmane Sonko Maham jàllo waa APR ñoo ko jël APR la bokk ñoo ko jël teg ko fa ñoo ko wutal sëriñ ñoo ànd ak moom yóbbu ko ba Inde mu sangu ji moom ak Mansour fay ak ñeneen ak ñeneen wax naa leen fi ak seen procureur xam Diallo seen procureur Amadou juuf ànd ak Badio Camara ànd ak ñoom ma cuucu Faye et cetera ñu dem ba Inde def fa 15 jours sangu bain dóor seen affaire ba ñàkk ñëw taxaw ngeen ne yéen da di xaar Maham Diallo wax leneen Adji Sarr ñoom dañ koy woowaat pour après dañuy génne ne Adji Sarr nee na loolu déglu leen de chaque jour ma wax leen ko Adji Sarr dañoo prêt seen plan ñoom ñoo woo Adji ñoom la ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom may nit yi jàmm ak maa xam jàlloo boo leen bëggee révolutionné ngeen révolutionné boo leen bëggee révolté ngeen révolté wu doo leen ñooy may jàmm ak show maa xam jàllo bi ngir yàlla sonnal ngeen ñu doo leen xeex ba pare noppi bugg ñu sonnal ma xam jallo boko waccalon yalla du jox ni Ousmane Sonko mo gagné boko indilon yalla du def no lieu boko waccalon yalla ak yeneen tubi sallallahu alaihi wasallam du def no lieu boko waccalon yalla yàlla ak giribaneem yëpp du def no lieu kenn mënul fexé ba du ko yobbu légui ñu jël Adji Sarr ñi tek audio ñu déglu audio xam né vrai la dé ñi indi Adji Sarr xam lan lañ bëgg Adji Sarr ñew bu di déglu leen de li ma wax day am dé Adji Sarr day ñëw ne waaw euh, euh, luñ préparé ñoom maa xam Diallo moom soxlawul Adji Sarr wax ko de moom bind lu muy bind ba pare Adji Sarr ñëw waa ñoo aji ñu déglu audio yi aji aji yaa ko wax waa maa ko wax kay dama doon fen dama ko doon nax dama ko doon teg dil daf ma doon jéem a doxaan après mu naan dina ma takk yóbbu ma mbiri na bàyyi affaire yooyu noon naan ma waxal waxal mais ma nax ko ma nax ko ah kon audio dama ko doon foowee dama ko doon foowee yëpp ay fen la dama kan moo ci mun dara aji sar lol lañ ko préparer té ma xam jàll bokku na sax ci plan bi aji sar bu demee danaan da doon fenn nee na moom xamoon na ni MC Niass da ko don pek diko di ñu né ko ah mune ne yorna audio yi man tamit parce que aji sar, MC Niass da ko don enregistrer aji sar di enregistrer MC Niass ñu né ko aji an say audio aji sar génné audio di ngeen ko dégg aji sar indi na ay audio ah ok kon da ko doon nax waaw moo tax man sax dama ko doon enregistré te waxoon naa leen ci live mars yi passé mois de mars ba léegi man leen MC ah, Niass di enregistré Adji Sarr Adji Sarr di ko enregistré. MC Niass di enregistré Adji Sarr Adji Sarr ko enregistré MC Niass yor ay enregistrement am foog ni moom rek a enregistré MC Niass ne moom rek a yor ay ojo mën na ko déet yoroo yow rek say audio de MC say ojo moom say ojo la kenn laalu ko waaye ba ngay enregistré Adji Sarr Adji Sarr rek lay enregistré. ñun audio yu ñu am jëlee ko ci yow MC Niass ci Adji saar lañ ko jëlee déggu leen de ci mois de mars si ne yi ma yor moom man maako moom samay audio la maay enregistré Adji Sarr ma ne ko déet MC bul ci musawaat ba ngay enregistré Adji Sarr Adji Sarr a ngi lay enregistré say audio moom lu wër nga wax yow ya nga enregistré moom kenn amu ko mais yow ba ngay enregistré Adji Sarr moom it ma ngi lay enregistré

te ñun suñuy audio ci Adji saar lañ ko jëlee toog kon audio ya nga yor moom lañ yor te xam nañ say contenu audio donc bu ma déggee ne am na liste de seize man aw ma audio boobu dëgg-dëgg awma ma audio boobu am naa audio nag bu muy wax ni ay kilifa dañ ko fi yeneen seet si audio boobu moom am na Adji Sarr di wax MC Niass ne ay kilifa dañ ko fi doon seet si mais ay kilifa tëddee nañ ma ah dëgg aw ko de ay kilifa seet si nañ ko fa loolu audio boobu am naa ko du ma ne nag bële amul waaye man aw ko donc Adji Sarr bu demee te waxoon naa leen ko démb ne Adji Sarr day wuy ji xam nga loolu wax naa leen ko boobu tey ngeen yow gis ko te démb laa leen ko wax ne Adji Sarr day wuy ji doyen des juges Adji Sarr après moom maa xam lii la. dama len di wax affaire jaru sax ñi wëri ok ñewugul aji ñu déglu audio yi aji ki yow la waa man la kay ah lu tax nga wax li dama don fen de comment wa parce que mom dafa ñëw daan daf may jéem doxaan naan daf may jéem tak naan daf may yob merina bay ma nekk ak mom fofu après ñu def li ñu def la mu to ma kenn duma laal affaire yoy nonu ka muy jé ak man mu may enregistrer man xamna daf may enregistrer waxtaan man sax amna enregistrement yépp ñu ne ko ah waaw ana yor nga audio yi waaye yor naa audio yi kay enregistrement ak MC Niass mu nekk tarak toog nii nii yi moom tamit gars yi déglu na ah kon <laughs> ah kon da ko doon fooye waaw dama ko doon fooye bu doon sérieux la man xam naa ne du sérieux doon foog moom rek moom mooy jéem a enregistré man tam ma koy enregistré mi ñu dindi affaire audio yi tegee nële na kon audio yi aji saar mii woo waxoon nee na dañ ko MC da ko doon jéem a nax pour peeg ko donc du du woon lu sincère du woon ay audio yu sérieux ay audio yoo xam da doon fen ay audio yoo xam da doon naxanteeg MC parce que MC da ko bëggoon nax moom tam muy nax MC ay audio loolu lañ wax kon loolu leer na kon audio yi ngeen di dégg lan moo tax ay waxu audio rek ñu ñu jox maaxam xam rek mu ne xaaral ma woo pour mu pour mu mais mais loolu ban juge la ñu jox ay preuve nga naan xaaral ma woo Adji Sarr pour mu wax ma eh, audio yi audio yi fan la ko teg lépp lu sérieux duñ ko def ñu indil leen enquête interne ñu général Tine de enquête interne woowuñu général tin ñu joxoon leen fi ay PV ñu am nanguñu sax woo euh, capitaine Touré dañ leen ko exiger ñu jox leen ñu jox leen fi certificat médical ñu tegee ko nële ñu tegee leen rek ñu xaar ñëw aji mu ñëw expliquer ci audio yi mais loolu ban justice la. ñu jox la audio doo ko téye nga xam ne nii buñ demee nga nga mun ko demee nga ne nga ne da ngay woo kooku boo ko wooyee mu ne la dama doon fen dama doon naxanteeg moom dara dëgguwu ci loolu yaa wax li waaw maa ko doon wax dama dama doon fen dama ko doon nax ku ci mun dara j'étais pas sincère yow sa bopp mun nga taxaw ne oui sa vrai elle était sincère mais aji aji moom ci boppam ne man j'étais pas sincère loo ci mun déggu leen de yow sa bop xam nga ni elle était sincère mais aji mom ci bopam mo ne moy taxaw ne doyen des juges c'est pas sincère doyen des juges bind c'est pas c'était pas sincère nee audio yi dang ko don nax mom moko def non mu mu trouble le réeral le c'est son système lu ci way mën sama gars bo len yakare ni pexé amna fi yo xamni mën ni mun ngeen fexe ba ma xam du ko changé mun ngeen wax ba Amadou Diouf du def lu muy bëgg def lolou len kese mo ci mun dara moy génn fipp Kulen leen wax lenen ne len ko mola nena da ngay fen fen la wax fen amu len ben preuve bo len mun tege fi ci kaw souf buy téré ma xam jël affaire yi ko justice ñu juge ko pour jëm ko takal wala sosal ma wat len ci len lu len Macky Sall waxon nena ñaara am soit ma bàyyi Ousmane Sonko ñew man ak mom ñu dem ci xare ba soit duma dem du dem ñaar yoy mo fi té Sénégal Sénégal ci ñaari yooyu la toog ci ñaari taat yooyu la toog te ña Macky Sall ñaar yooyu la jox ñaari conditions yi te nee na day dem mu ne soit Ousmane Sonko dem ci élection yi moom mu dem ci élection yi ñu xare ñoom ñaar ne waruñu ragal làmb rek premier ministre ñëw même chose ci discours am assemblée nationale loolu di tiit loolu di ragal mais bu dee bu wóolu ngeen seen bopp bàyyi leen ko ngeen dem te loolu waxoon naa leen ko nee leen Macky Sall nee ñaar yi la leen may condition soit ñu dem ci justice ñu def procès ñu dóor ko non lieu mais moom day dem par force ak Ousmane Sonko ci élection yi soit peuple bi ne ñu dem mu taqal Ousmane Sonko ne ko tam inéligible day dem Ousmane Sonko dem wala Ousmane Sonko toog moom mu toog moom ñaar yooyu la décidé ñaar yooyu la Macky Sall décidé te moom moom maa xam Diallo juge am la moom moom Amadou Diouf juge la moo leen moo fa teg ay nitam lañ mais lan ngeen di xaar. dama ne billahi international audio bu fi gennon du tax ñom ñu nangu ñu nopi du tax ñu arrêté lolu nak yom na mais peuple bi moy bañ man dama leen di wax li deug soxlu wu may soxlu wu may yok dara bañ ma sen mujjantal wax bañ ma mujjé wax la boy Mola on te propose yang ngi dof-dof soit tu acceptes nga may ñu jamm on soit avec toi nga jël sa xaalis jël sa lepp dem sa yoon mëno ko di nga yakal sa bop ndax gisuma luy tax ba Macky Sall du dem def 3e mandat moy manam yow doo ñëwagoo fi léegi soit nga and ak mom ñu jox la lepp lo bëgg après nga mën fay ñëw wala nga tok fofu di bandi bandi loko ko bañ bañ lu xolal yow do fi duggati du mu do fi ta dugg parce que dinañ rayanteeg ñi ba tagat ci Macky Sall te boba yow do fi duggati c'est fini pour toi moy fa ngay nek ba dé mais man dama len wax ni geumuma ni peuple bi dañ sétan li ngeen bëgg donc bayi len di jël sen yaakaari diko jox di jox l'appareil judiciaire là maa xam jàll depuis le début mi ngi leen di foowee te wax naa ba tas maa xam jàllo ba suñu jonn yàllay tey benn parti bi rek lay déglu <laughs> ak aji saar te waxoon naa leen ko aji saar aji saar dafa jaabante foofu ba mu neex ko aji saar boole nañ ko ki nga xam ne mooy nday xadi aji saar boole nañ ko mama ba deux fois Adji Sarr dem na Adji Sarr ñu boole koog Ousmane Sonko Adji Sarr ñu bo moom ak juge Adji moom ak euh, euh, mama ba ak euh, Ndeye Khady ak Ibrahima Koulibaly jëkkëru kii donc Adji Sarr dama gum na six ñu woowaat Adji Sarr sept Adji Sarr di jaabante nu mu ko neexee mel ni doyen des juges këram ñu wane aji saar muy vidéo ci bureau doyen des juges di vidéo Ndeye Khady nii vidéo sa waay dëkk boobu amul justice arrêté leen fii xam ngeen lan la booy canadien bi sax wax na leen ko ne ngeen jóg xeex munu le du ay wax ca jële jëlewu fi ñi Adji Sarr bu demee ba ci doyen des juges yor enregistrement am di enregistré Ndeye Khady Ndeye Khady ak ay avocat am porté fu mu mujjee <laughs> ana plainte Ndeye Khady ba

bañu ay sar ñom seen bop ñoo koy woo préparel ko lu mi wax bind lu leen neex barki Muhammad bu de da ngeen na tok di xaar justice bi, mu takal Ousmane Sonko ba mu tak rip rip lolou luñu signé la ñom bo indi won yalla ak yenen tubi wallahi ak Ousmane Sonko ci ay wax ak ay preuve du tax ñu jox ñu jox Ousmane Sonko deug ndax signé wuñ lolu motax Macky Sall nekku ci sax di wax mom mi ngi dem amna lu waxante ak ñom dafa leer amna Macky Sall tok nak ma am Diallo am lu ak mom lu leer am Diallo signé mu def ko doyen des juges mu toga ki nga xam moy pap Diouf Pape Diouf wax ko lu leer ñu signé mu def ko procureur ne len bayina len nak bagage yi gérer len di dem voyage fu ko neex di dem di ñew lijjanteetu leen ñoom ñaar c'est des ces hommes de confiance am na lu mu leen wax jox na leen liggéey ñi ngi koy appliquer moo tax doyen des juges musul woo Gabi te moom nee nañ kii moo bind plant bi ba Gabi est-ce que xam ngeen ni ñooñu teg plan bi ba léegi bàyyeeguñ Gabi moo wutal aji saar hôtel bu mu nekk Tanière Gabi xoolal mii wax tey jii Mamour Diallo dem na seeti aji saar tey donc les instigateurs di complot ba léegi ñi ngi dox ay ñi ngi dem di gisi Adji Sarr ñi nga koy jox xaalis ñi ngi koy dalal ñi ngi waxtaan ak moom mais ba léegi convoqué wul Dior Diagne loolu c'est faux convoqué wu ko gars ñooy xëy rek di bind Maham Diallo musul convoqué joor Diagne musul convoqué Gabi Sow musul convoqué Mamour Diallo musul convoqué Mamour Ba Thiam Mathiam benn yoon la fi convoqué Sidi Mohamed mbay point benn yoon déggutu leen ko fenn mu Sidi Mouhamed Mbaye dem na fi ba takki jabar Thiès bay bëggee Sidi Mouhamed Mbaye am na jabaram ma ngay fanaan di yow jóg Sidi Mouhamed Mbaye mi ngay xaalisam dem na fi Amérique ñëw ñoom ñi ngi voyagé ñii ñëpp ñu bokk ci côté Ousmane Sonko ñëpp lañ nangu seen passeport ñëpp kenn mënu ci voyagé ba ci kii moo mujj muy Pape Alagna passeportam dañ ko nangu. sous contrôle judiciaire. Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire. Le, le, le, le, euh, euh le docteur Alpha Sénégal, euh, il ne bouger. Euh, Qui capitaine Touré, il ne peut pas bouger nous ñu est ci Ousmane Sonko ñëpp lañ passeport ne doon bouger un an et quelqu'un kenn woowu leen ñi ngi dem fu leen neex Mamour Bàccaam bërkaati démb la ànd ak Mamour Diallo ñu dem Màkka di wër Kaaba ga Mamour Bàccaam ak ki nga xam ne mooy Mamour jàllo daaw ñi ngi woon di wër Kaaba ga ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo ànd umra di wër Kaaba ga boobu Sénégal la ngi tàkk jëpp di coow ah, ñoom ñi ngi wër Kaaba ga ñi ngi dem fu leen neex heure bu leen neex côté ba lepp Viviane ken wo ko ba dem na Amérique <laughs> Viviane bi ngeen don deg mom ak lim fi def ci salle yeb ken wo ko ba dem mi dem na Amérique mën na ñëwaat sa heure ko neexa ah? Mamour Badiam ken wo ko Mamour Diallo ken wo ko Viviane ken wo ko te nanguñ sen passeport ken wo ko moy nanguñ sen passeport ak képp ku ci taq ci côté Adji Sarr kenn woowu leen côté bale ñëpp lañ nangu seen passeport yi toogloo leen Sénégal prison à ciel ouvert ba léegi sénégalais yaa ngi toog gis dëgg ji xam ni lii complot la lii ay fen la ñi toog naa dañuy xaar benn euh, Omar Maham Diallo est-ce que mus ngeen dégg Omar Maham Diallo yëy yàbbi gaa yi ngi dugg biram di génn de est-ce que xam ngeen ni amul lu Omar xam Diallo ñi mee wax waa côté bële mais Omar maa xam Diallo réeroowul ak ñoom Macky Sall déedéet billaahi wallaahi Dior Diagne kenn musu ko woo Viviane kenn musu ko woo Ousmane Diis ma Mamour Ba kenn musu ko woo Mamour Diallo kenn musu ko woo kii nga xam ne moom mooy euh, Basirou Gueye kenn musu ko woo Moussa Fall kenn musu ko woo côté bële kenn woowu woowule ñi ngi dem fu leen neex du wër ci àdduna côté bii dañ leen a nangu seen passeport yi tëj leen fa bàyyi leen ciel à ouvert ciel ouvert prison à ciel ouvert ñu toog fa gars yi xool bu nu ñu dem dikk te ñu ngi yore tous les preuves du monde ñu ko joxee gars yi gars yi na ko nii cinéma bi moo jeexagul pare guñu ak yéen nee naa leen cinéma bi jeexagul tant que jugement du am du leen bàyyi maa xam soxlawul ñële gis nga cercle bu ndaw boobu mooy Ousmane Sonko docteur Alfousseynou Gaye capitaine Touré euh, nu tëddati ñoom Ndeye Khady jëkkëram euh, portion bi ñii ak MC Niass ñii lay jàpp di fowee di leen xandal MC kaay demal eh, kii naa la Sonko kaay demal docteur Alfousseynou kaay demal euh, capitaine Touré kaay demal capitaine àndal ak àndal ak Ousmane Sonko ngeen ñëwandoo ah gars capitaine ñëw Ousmane demal eh euh, euh, Ousmane àndal ak euh, docteur Alpha Seyni Gaye ngeen ñëw aca dellu leen eh ñëw leen eh aji ñëw ñëw wax ak kii xoolal ba bañ toog ñoom ñiy teg seen plan ba heure bu jotee rek ñu ne ko tul soit ñi def jugement taqal tiiñal tilimal sànni fële soit duñ ko jugé ba mooy bu Macky sàll ñëwee taxaw ne day def troisième candidature ba leer par mais bu troisième candidature mu leer nañ jugement Non, la ñuy duñ Ousmane Sonko bu dee day troisième candidature moom du Ousmane Sonko duñ dul sax def jugement De ma de bu Macky Sall troisième candidature gis nga lii dañ koy du Sénégal ne du tàng jër sëriñ yi woo ko ñëpp ne ko doo ko def mu ne kon kii du fi de kii du kii du doon film bu leer laa leen di tegal Macky Sall ngi nii Ousmane Sonko ngi nii justice baa ngi nii Macky Sall ne kii bu bëggee am jàmm damay ànd ak moom ci élection yi par force damay taxaw li nga xam ne mooy justice bi ma bàyyi noonu duñ ko def noonu duñ ko def dara jugement sax du dul am mu de ànd ak man ñi dem ci élection yi bàccante ma sàcc élection yi premier tour 54 quatre pour cent cinquante pour cent mu mu mu jeex soit ma ne damay teg peuple ma ne du ma teg sëriñ yi woo ma dëkk bi ne day tàkk ñu ne ma rocc sa loxo ma rocc sama loxo waaye après ma teg jugement bi ñu teg ko kii tam de dem foofu ne jaxay ma lanj kenn du fa nekk après ñoom Amadou Ba ñëw wala ñeneen ñëw ay nitam gagné lii lañ décider lii la Macky Sall décider lii mooy mun a am yalla leral na lepp mais nous dégluñu dégluwuñu xooluñu de il faut que ça soit clair ñom li lañ tek moy une logique et Macky Sall est dans son logique et poursuit bien sa logique Macky Sall suit bien sa logique il faut que ça soit clair il faut mu l'air. il faut pas ñu ñu tuma deg kenn di wax ay waxu Maham ma Maham jallo day reeree ak ñom Farba Ngom and ma Maham jallo ede de loñ Farba Ngom siwal de futa Siwol c'est le Fouta c'est le ko Bandum Maham jallo bu toge fofu c'est grâce à Farba Ngom Maham jallo du enquête lu Farba Ngom dul yekk lu farbangom Ngom ko Macky Sall yëg ko est la seule personne bu meuna retane lo Macky Sall gis ngeen ko mom ak maire farbangom lañ Macky Sall tok farbangom di wo maire di liiral c'est son ami c'est son griot ñi nek palais dañ koy wax nee nañ Farba rek mo meuna retane lo Macky Sall lu ko neex lay wax farbangom dirige ce pays là daf ci am cadeau yu rëy maa xam far ba Ngom moo ko fa teg ku dugg bureau maa xam jàll balaa ñoo fanaan mu woo Farba Ngom wax ko lépp gis ngeen Farba Ngom maa defee ko nii waay kii lay sa faire foutre saaga ko sax kóot sol de baamun wattaat mu lakk ko ay làkkam maa xam jàlloo di wax ak moom Umar maa xam jàll di wax ak moom bu ko joxe lepp lu am mu jox ko Farba Ngom Farba Ngom dem gi tok ak Macky Sall wax ko ko bu Macky Sall ñibbisee Farba Ngom day dem direct palais bu démé wax ak mom <laughs> ay affaire yoy non affaire de gewé la sa gars wax ko ay affaire far Macky Sall di xaaxataay sa yu rétané Farba Ngom ko rétan lo moko dul katam la da kay raconter tout te ma xam jàll du sax jot Macky Sall déggu ma de xam jàll du wo Macky Sall maa xam jàll Farba Ngom lay woo far Farba Ngom dem wax Macky Sall tout Macky Sall xam lépp parce que ma Farba Ngom moo fa teg maa xam jàll ba Ngom mooy gérer assemblée nationale saa yi ñu defee session trois cent milles cinq cent mille la seen député yi di am waxuñu leen ñu def dara kaay leen tàccu kaay leen yuuxu ku ku ku waxul lu lu jàmm saaga leen ndeyam chaque session budgétaire seen député yi am cinq cent mille wala trois cent mille moo tax ku taxaw ñu saaga sa ndey donc gis ngeen dëkk bi yàqu na ba pare boo leen yaakaaree ne ay toog di xalaat ak am ay esprit dëgër am bopp mu a réfléchir mooy tax ba maa xam jàllo ne ne ne noo lieu da di nax seen bopp yor seen i pexe ba foog ni seen i pexe mooy tax maa xam jàll maa xam jàllo dégluwu leen déggu leen lijjantiwu leen dafa am lu ko fa toog loolu te mi ngi koy def maa xam Diallo li ñu ko jox ci preuve ba léegi mu ngi foox yéen ngeen toogaat foofu di am seen yaakaar wala jël seen xel yi ak seen xalaat yi di ko bàyyi xel mais yi doo leen avancer tuuti ban preuve lañ joxul maa xam jox nañ ko PV PV d'enquête yi ci gendarmerie ba mu tegee ne ñu indil ko enquête internet de la gendarmerie mu tegee ko ne ñu indil ko certificat médical bi mu tegee ko ne mu enquête leen ñoom ñëpp tegee ko ñu jox ay audio mu tegee ko ne le woo Adji Sarr na ko kaa expliqué ci audio yi mu ne non dama doon fen dama doon naan ñu tegee ko ne le naan la acaw ban moo des lu des wax ma indil leen lan an moo ci des eh, Sonko yoroo leneen nga jox ma ko boo leen indi woon sax yàlla yàlla ne yàlla wàcc sooraat ne man maa ne nangam ak nangam wàcc yàlla wàcc sóoraat sax mu tegee ko ne parce que dafa am objectif dafa am lu ko fi toogloo donc ku fi toog di wax sa sa bopp gars yi ñoom dawuñu de ñoo as ñi ngi assumé ba léegi Mamour Diallo ngi gisante ak Adji Sarr Gabi Kan Gabi Sow mi ngi lijjantil Adji Sarr fu mu nekk ak ca la mu ne maa xam lañ ko sant mi ngi koy def procureur Amadou Diouf ma nga yóbbu ay éléments am foofu ñuy dem ci enquête yi PV ñu mi ngi koy def donc ñoom la leen war lañ bëgg a def ña ngi koy def preuve yi leer na ba léegi changé wul dara kon kay affaire bi problème mu preuve benn justice bu instru buñ instrumentalisé la problème mu justice lañ am enquête de la gendarmerie ñu tegee ko ne lépp la tegee na le kon benn justice buñ instrumentalisé la benn justice kumba am ndey kumba amul ndey la képp ku wax ci dossier boobu dugal lañ la kaso. wala képp koo xam ne gis nañ la nga mus a wax ci dossier boobu yaa ngi kaso boobu ñu ciy wax wax yi ma ciy wax yëpp nekkuñu senegal dañ leen rëcc mais kon heure bi ñu ngi kaso dossier bi li ma ciy wax bu fekkoon foofu laa ko waxee maa ngi kaso moo tax ñoom ñu sonn dañuy toog rek di jooy yooyu ñëwal yow ñëwal lu mu fay def dafa am dara dara xaaruma fa lu mu fay def li ma yor nii da ngeen ma ñëw foofu ngeen lekkal ma ko rek lu mu fay def lan moo fa am lu ma fa war a def man <laughs> dëkk ñoom dañuy assumer dañuy dañuy assumer lii dëkk bandi la dëkk bu amul justice la yow li ngay wax sonnal ñu yëpp ci kaw nga nekk di ñu saw mais boo nekkoon fi heure bi noppiloo nañ la bu yàgg rey nañ la bu yàgg wala nangam mais heureusement que yàlla bi dara tawul jël ma yéegal ma ci kaw man ngeen nekk ci suuf ñoom ñoom waa APR ma leen di saw may saw kaw muy sit dedet gëj nga deg da mboj de amna na ku ma ne daam mbóoj kañ nga gëj deg da mboj mbóoj nga gëj deg da mboj mbóoj nga ko deg de est-ce que laajte ngeen da mboj d'accord fofu la yem pour vous dire ñeneen ñi ci média bi lañ ne amna yo yoo amuñu fitu wax ko kan mo fi ñëmé kan mo ñëmé nek Sénégal di génn numéro Adji sar kon heure bi lima ci kasso bi lima def ni fi ma tok motax lima tok lu deuguer lèr nañ bien sécurisé lépp nice motax ma am fitu taxaw door numéro Adji sar ñi nek ci kaw bi yëpp ñi wo woo Adji Sarr mënu dara dañ tok ci lu wër dañ tok ci lu wër juge bu am fitu wax numéro Adji sar heure dama né sénégalais bu am fitu joxe numéro Adji sar ya ngi ci kasso bi donc il faut que ça soit clair bu leen tardel seen Bob bu leen tardel xaar ay justice non je wax dara wax dara en tout cas lii Je moma ma joxewuma audio joxewuma audio waxuma liste yoruma liste joxewuma audio waxuma liste liste il faut que ça soit clair ngeen teel ko xam loolu daal may wax donc nous moom am te dégg naa ñii vraiment taq nañ ci bu un dossier sexuel tamit ak Adji Sarr ñii taq mais man yoruma liste comme yéen laa ci di liste liste yoruma audio buy wax list loolu leer na sama gaay kon nag ñu def noonu à bientôt incha allah ñi nekk ci kaa mun nañ woo aj sax am na ñu may dégg ñaan ay gars yi traqué nañ jàpp nañ loolu c'est foo jàpp ñu fi kenn nee naa leen xeex bi dañuy war a bàyyi di yokk ak a fen xeex bi bàyyi di yokk ak di fen numéro bu ma joxe nee naa leen ñama ko jox te ñu war a woote xam nañ ñi nekk ci kaaw bi quatre-vingt-dix pour cent ñooy woote jàppuñu jàppuñu kenn ku yore benn numéro téléphone am nag woo Adji Sarr saaga ko wala menacé ko di xaru loolu yow la man waxuma kenn jëlal numéro nekk Sénégal jël sëpp numéro ci boppam di woo Adji ci boppam nga xam ni nga di ko saaga di ko menacé ñu jàpp la loolu yaa def sa bopp yaa xaru mais quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre vingt dix woo Adji Sarr kaaw ba lañ ne kenn mënulu leen tus ñu ma wax ñëpp ñuy woote ñu ngi ci kaaba kenn mënul leen tus fu ñu toog xam nañ ko aji kenn mënul leen nix ñooy woo aji saar di ko di ko vidéo ko di di ko saaga ñooñu xam nañ fu ñu nekk wala ñuy nekk ay Maroc wala ñuy nekk ay Mauritanie ñoo xam nañ fu ñu ne kenn du leen fa toppi daqe leen du leen wër parce que dañoo woo aji saar wala dara il faut que ça soit clair ku yor numéro benn numéro kese woo aji saar menacé ko loolu yaa xaru kenn waxu la ko loolu warul tax nag nit kenn di kàcce oui am na sax ñu traqué am na ñu jàpp non moo laa warul joxe audio bàyyi leen yooyu bàyyi leen yu sew bàyyi leen seen xeexkat du du am ay jikko yu sew xeexkat warul am jikko yu sew xeexkat warul doon saytaane xeexkat warul fu mu gis dara rek jéem fa am lu fa yàq ñun jóguñu di xeex di tay la sañu bakkan pour yàq xeex bi pour bokk vi ci bi pour yàq xex bi wala pour tirimal xex bi nañ bàyyi ku jóg di xeex bay rey boppam nit ñëw bokk ak a wala yàq bokk ak moom idée bokk ak moom vision ne veut pas dire que nga dem sax di fen wala di fenal man nee naa kenn changer kenn wax loolu ma war wax kenn ak warta wax j'assume tout tout lu ma wax dama ko assumer xaaruma kenn ci lenn il faut que ça soit clair mais awma jotu tam teg fi kenn di la débat vraiment Sénégal ak fu mu toll ni taluma di tek fi kenn nan damay def sa procès loolu lu ma di xamal dal moy Macky Sall recevoir na demb ki di Gabriel kan, recevoir na demb ki di euh, Diagne Ndiaye recevoir na démb kii di Baba Aydara recevoir na démb kii di coon ñaa ca ñañ ma joxagum ci ñi Macky Sall recevoir démb loolu moom xam naa ko man daal nee naa gëj ngeen dégg daam loolu laay wax daam daa nekk tournée daa nekk planet Mars ak yooyu waxuma dama ne daal man xam naa man xam naa waxuma dama ne daal daam daal bu dee dafa nekk ci benn village bu amul micro wala benn village bu amul portable wala benn village bu amul euh, euh, fu ñu mën a waxee dafa am ci benn planète bu mu nekk boo xam kenn mënu fa wax loolu yéen laak moom man jéemuma xool daam fan la nekk ci alaxira wala ci adduna adduna bii daal fu nekk mun naa wax ñu dégg la na nekk tournée loolu waxuma man daal dama ne leen gëj ngeen dégg daam jéem leen a xool ci lu mu nekk <laughs> jenta gëj ngeen a dégg daam waxuma dafa waxuma dama ne gëj ngeen a dégg daam jëm leen a xool ci lu mu ne ak fu mu ne waaye fii fu waay mun a nekk ci àdduna ak turne boo mun a def mun nañ laa dégg fenn daal laa xam ni kenn munoo fa nekk ñu dégg la nga nekk ci biir avion boo nekk ci biir avion avion bi di naaw foofu munoo faa live munoo faa wax ñu dégg la loolu laa xam naa ko waaye fii ci kaw suuf amul foo mun a nekk ci àdduna te munoo wax ñu dégg la fii ci kaw suuf amul foo mën a nekk ci kaw suuf bugg a waxtu duñ la dégg lool leer na voilà le foofu daal laa laayam yéen ñii nag nekk fi vraiment jéem leen a xool fu mu nekk ak ci lu mu ne point loolu foofu laa yem waaye daal Macky Sall recevoir na Diagne njaay recevoir na Gabriel kan recevoir na Baba Aydara recevoir na coon ñaa lu may wax day dugg lu ma amul lu leer ma noppi loo xam ne bu ma ko waxee mu yàq lu bari ma noppi bu mu munee dem ba jot waaja ma jot waaja ne ko nee nañ ma lii lii laa bëgg a xam lii bu ma ci waxee lu leer ñu jàll lu may wax noonu laay doxalee man du ma fi teg kenn di ko yàq du ma fi kenn di ko tayle képp koo xam ne mus nga bokk ak man xeex bi même bu dee une minute bu ma déggee dara ci yow dinaa fexe nu ma la jotee laaj la ci nga expliquer ma voilà foofu laa yem ak yéen nag asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jërëjëf ñu fanaan ak jàmm